شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا من عذبي وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لحسن خيري يجود للجواد بالجياد وصول لي يكون ذا انقيادي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 nafaani bil mustafa al musafai alaytani ma huna fa'al anfai daa xilaamiya ila sukuri man saqara lil xalqa baqa izaaman rabbi maliki xalili wal habib waxat ma niya daaya tabib bara'ani min kulli aybin wa mara di waajal bis bu màgg bii ñu dëgmal muy bisub màggal Touba ñëw fi nag teew fi ni ñu fi teewoon nege ne si daaw ci liggéey bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma daf koy def ci jumaay Touba muy saytu jumaa ji ak waajal màggal gi waajal màggal gi nag ku nekk xam na jumaa ji mbooloo mu bari mi fi ñëw di ziyaar si ak di julli si mbooloo moomu nag war nañ leen a taxawu ci wàllu wér-gi-yaram ba tax na daayira Muxaddamatul Xidma at yi weesu yëpp mu ci doon def ay jéego ba amaloon benn infirmerie bu am solo ci biir jumaa ji ngir gunge pèlerin yi nga xamante ni ñooy ñëw ci màggal gi di julli si ak di ziyaar si taxawaay yooyu nag daayira Muxaddamatul Xidma lëkkaloo ko ak ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu wér-gi-yaram fii ci Touba muy district sanitaire bi te am ñu leen fi teewal dinañ ci ñëw ci kanam waaye nag mu am partenaire u daayira bi mën naa wax koo xam ne taalibe bi sëñ Touba la koo xam ne euh, day yëngutu ci wàllu wér-gu-yaram di ci dimbalee màggaluk Touba nag depuis daaw mu amoon ndigal lu bàyyi ko woon ci Cheikh mun Mountakha mi fi nekk sëriñ Touba yàlla na fi yàlla yàggal lool te may ko wér mu joxoon ko ndigal ci mu taxawu daayira mu Khidma ci fànn googu ci wàllu wér-gu-yaram muy professeur Daouda Ndiaye mii ngeen gis daa woon na fi lowu boo xamante xamante ni xaalis bu baree bari bu takkoo takku la boo xam ne yëg nañ ne taxawaay yi nga xam ne moom lañ doon def ci wàllu wér-gu-yaram fii ci jumaa ji amoon na solo lool yokkoon na ko lool nit ñi itam yëgoon nañ taxawaay yooyu bu baax a baax a baax a baax. waaye bu am am am solo lépp lu ma fi def jàppale na ñoom def nañ lu ko ëpp lool ci ginnaaw ndax lu ñu def ba xam ne lii la soxla ci wàllu kër docteur loolu rek dafa kéemaane. loolu nag sama naataangoo docteur Thioban ak docteur Ablaye ñu ngi fi ñoom dama leen di sant bu baax a baax a baax ndax buñ ci jàppaloon it du seen liggéey du yomb di wax ne daal ki wax yéen ab taalibe la ci la juddu ci la màgge te ci lay dee incha allah rabi moo tax lépp luñ fi def ñun waruñu ko gis ndax ki ñu koy defal kooku àdduna daf ko war a fay waxuma jullit yi waxuma murit yi àdduna daf ko war a fay ndax dafa defar àdduna foo dem ci àdduna moom liggéeyam am na fa impact donc bu ñu yàlla jagleel rek ma ànd ak ma ñu war àndal ba ñëwaat fii loolu jagleel la loolu loolu loolu loolu wërsëg ëpp ko ma nee naa gars yi maa leen ëpp chance ndax euh, lii ñu ko bëggoon def bari na de ñu ko bëggoon mënoon def bari na moo tax euh, daw liggéey ko def ko loolu contentement mënu ko dépassé ñu wax ne daal li ñu fi indi encore une fois pour dalal xel yi nit ñi la parce que koo xam ne defe naa Sénégal àdduna kenn du fa des fi lañuy ñëw te nit bu dem fee dafa laaj ñu dalal ko te ñëpp xam nañ ne ñuy dalalee ci xéwal yi ci dëkkuwaay bi waaye ci wàllu sécurité waaye si dafa am boo xam ne moo tax nit ñi di xëy di mun a wax mooy wàllu wér yaram euh, naam xam naa ne. lépp lu war ci wàllu loolu sëñ Tuubaa yor euh, toppatoo na ko li jënd na moo tax fii ci jumaam ji nga xam ne fii la ñëpp di ñëw mu fexe ba moom sëñ Tuubaa ba képp ku am soxla ci wàllu wér-gu-yaram mu teg fi ay docteur ay jumtukaay yoo xam ne ku lu la fi xosi sax ñu faj la moo tax lii tey ñu indil ko sëñ Tuubaa moo ñu ko yónni ñu indil ko ko ñun ci dara lu dul ñu ko yónni ñu ko ko ñun defuñu ci dara donc lépp lu wàllu faj bi ci xale bu tuut tànk bi li ñu naan bébé kii soog a juddu ba kër màgget ka lépp lu fi nit war a am ñaanuñu ko yàlla waaye loolu war àdduna du dudee ku ci xosu wala nga feebar fi lu la mën ci dal bala ngaa dem ci benn hôpital muy bu Sénégal wala bitim réew mën lañ la toppatoo fii ba pare loolu mooy li ñu indi ci ginnaaw lépp luy wàll médicament kon li ñuy wax ay médicament mooy li ñuy wax per yi li ñuy naan ci li ngay naan li ñu lay jàmm mooy piqûre yi li lay perfusé parce que parfois médicament bu nit ki nekkee ci ak tayo bakkeem lay mën a jël médicament mais bu xamatul fu mu nekk kooku dañ koy perfuser lépp lu docteur yi di soxla ci perfusion yi ak yeneen yi ñu ngi ci biir muy tension ba muy jabet ba muy buur buy metti ba muy gaañu gaañu bi muy miir ba muy ki soxla oxygène lépp lu mu nit soxla pour dalal doomu aadama yi ne leen Touba de defati nañ seen mën mënën mooy ñu ñu nit ñi rek seetaan leen ah ku ci feebar nga xool foo jëm déedéet fii ku fi dugg ci kattanu yàlla ñaanu yàlla dara dal la mais bu fekkee ne jàmm nga fi jàmm nga ngay ñibbiwaat loolu mooy li li tax ñu indi lii te loolu am te nee naa leen li ngeen euh, moo tax ñi ma ko santoon nee nañ ñoom doyaluñu dañuy indiwaat joxaat naa ak instruction docteur Aliou Ndiaye ak docteur Epen nee nañ même altine li ngeen gis nii ñoom nee nañ dinañ indiwaat yeneen parce que fii moom loo fa indi du doy te xam naa ne lii moom mën na mën na li jënd baakal gi moom waaye ñeneen ñoom doyaluñu ba ki tëdd ci lalam li ngay soxla pour pour pour su am gis sa bopp li ko docteur di waxee fooy demee euh, euh, ci sa génne ndox indi nañu lépp loolu nag bu amee aussi damay sant waa daayira bi encore ndaxte nag lii bu amoon te te te kër gi ñu nekk mooy barab ba mooy dispensaire bi hôpital ba fi ñuy war a nekk doxul wala am lu manqué kon tey lii du ma am donc daayira bi damay wax ma seedeel nit ñi en moi xam ngeen ne man su ma waxee damaa war a wax ci wàllu wér gu yaram su ma waxee damaa war a wax ma wax Sénégal wax àdduna ne li ma gis fii depuis aj ñu def ko fi ak ba tey ji nii mooy Touba de jubaa ji ñëwul kenn ci wàllu wér gu yaram ak faj loolu nag bunti ba ci bàyyiwuñu dara dara bàyyiwuñ ko mooy condition yi nga xam ne lañu ñu war hospitaliser nit ñi respecté na norme internationale moo tax man leen Euh, mais insister ci man maay wax nit ñi xam nañu dégg nañu suba ngi nii incha allah war naa dem ka veer lu mel ni lañ may woowee foofu pour ma lijjanti leen dawaat ñëw ci màggal ga ñaari fan laa fay def ndax lii donc bu ma bindim réew war a mën a woo man may doomu sëñ taalibe sëñ Touba bokk ci kër gi moo mën a wax ne bindim réew que lii am fii amul foofu amul feneen hmm. loolu mooy li mu mën a seede da Ndiaye ak ñu mu àndal ñëpp ak uh, ñi nga xam ne nii uh, liggéey bi ñoo ko seetu docteur Thioban ak docteur Alé Guèye nga xam ne nii bi ñu fi tàmbalee ba tey ñun ñoo nekk ànd ko Moukhaddamatoul Khidma pour lii ñu mën ko taxawal ba tey jii bii mooy ñaareel bi yoon professeur Daouda Ndiaye di fi andi ay bagages yu ñu mën a liggéey mu jumtuwaay Euh, lu ñu mën a fajoo muy garab ak lépp loo xam ne mooy yëwaleen faj ma muy ay consommable ñu ko ci sant nag di ko ci gërëm ndax euh, taalibe yu mel ni moom bari la nañ ko waaye ñi ñi man li mel ni moom moo néew euh, xëy na li ab soññ lay doon ci ji des ñu ci moom ndax suñ tubaa amul ku mu moom muy keneen lu fi waaye am rek bu jigéen la ci suñ tubaa moom la ci des du bari rawatina nag li nga xam nit mënu koo ñàkk muy jàmm ak xéewal koog man bi nga xam ne nii ñun waa Sénégal ñu ngi ko nekkee lu ci waaye am dee ko gërëm sëñ Touba ndax bu dul woon moom doo ko mën a am. leneen li ci topp mooy di ko sant ci humilité bi ndax bu yónnee woon rek mu doy <coughs> waaye day def at bu ngi det moom mooy déplacé boppam ñëw fii ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp mu ci génn kenn ci ñi mu àndal muy rakkam euh, docteur Aliou Ndiaye suñu wëlërale collègue ñoom docteur Thioban bi la sama collègue collègue grand frère la woon xamante nañ lu jiitu moom muy dellu foofu ca moom di ko jàppale ci wàllu liggéey bi muy doon ñun ñoo xam ne ni li leen xamee ci ak taalibe la leen xam ak di saytu moo xam soxla woo nga ko ndax ay liggéeyam dem andi fa dara pour taxawul leen suñu borom nag dana wax ne képp koo xam ne amal nga nit ñi njëriñ da nga yàgg ci kaw suuf yàlla na ko suñu borom boole te sàmm ko te wéral ko di gërëm tamit ki nga xam ne ni ñun moom lañ fiy teewal Touba daa am nu mu tëdd sur le plan médical euh, docteur Dieng mooy kilifa ak région bi yëpp am na ndaw loo xam ne moom la am fii ci district bi mooy docteur Ndeye Maguette xëy na ñoom ñoo fi waroon tooy waaye bu ma fi teyee sañ naa leen waxaaleel ndax man ci ñoom laa bokk te lii bañ ko tàmbalee ba tey ñoom ñoo koy ànd fii li ñu leen ko mën a leeral mooy ajjuma bu jot am na taxawaay boo xam ne nii ñu ngi ko ànd ak euh, euh, centre de santé bu 28 ci ndigalul district sanitaire bi ñi fiy ñëw di julli si ajjuma diggante midi ba 4 heures ku fi dara gaar des na la taxawu jox la garab te doo fay dara te loolu bu ñu ko mënee ba tey ji taxawaay ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ci daan jàpp démb ak bërki démb muy association pharmacien yu Touba yi euh, le collectif des des des des privé yi nekk Touba le district sanitaire euh, hôpitaux yi fi nekk ku ci nekk wàllu wa nga war a taxawee bu yàgg ba tey yaa ngi koy taxawee ba lii tey ji ñëw nekk renfort mu nekk renfort boo xam ne bu considérable naat ndax bu tool bu nii néew na lu ñu koy am mu def nu mu toll war nga ko gërëm gërëm gu ñu nga koy defal ndax Sëñ Tuubaa mbiram moom bëri ko bu teg lu tege moom moom moom yëf yi moom moo ko yoral boppam ne bon Sëñ Tuubaa moo lay liggéeyloo la nga xam ne ni moom nga ca yaakaar moom dana la ko fayal boppam te moom rek moo ko am lii lii rek mën na loo xam ne nii ci màggal gi dama mën na ko yor lépp waaye da di màggal mënoo prévoir ñaata malade ngay am. statistiques yi ñu amoon ak yële ci gannaaw lii mën na cee sori lool bu bu bu ci doyut waaye da nga dul xam màggalu daaw gi wóor na mën gu ren gi koy ëpp nit te kenn xamut ñaata ngay am ci ay nit. moo tax médicament du fi doy te comme ni ma la ko waxee mooy bu ñu jógee ci liit mooy ajuma yi day am toujours ñu koy soxlawoo lu ñu mën di nekk du doy su ñëwaatee lim ñu dig ne dañu ko andiwaat alterné bu ñëwaatee tamit lu ñu ci soxlawut tamit dañ ko fiy téye màggal gi weesoo gàmmu gaa ngi ñëw dañ koy soxlawoo parce mel ni dafay amat ci wàllu gàmmu gi ndax daanaka Touba événement du fi jóg yeneen màggal yi nga xam ne dafa jege jumaa ji tamit lu mel ni bu fi am taxawaay bu mel ni da cay am bu boobaa doo mën à chaque fois nit ki nga di ko woo ñaari yoon wala ñetti yoon ci biir année bi di ko koy teg foo xam ne nii ñu koy saytuñ mooy ña ko war a fa saytu lépp lu fi garab docteur Thioubane mi ak équipe bi nga xam ne moom moo yor moo koy saytu lépp loo xam ne sur le plan médical docteur Aly moo ko moo ko moo ko moo koy saytu lépp loo xam ne nii moom lañ fi war a euh, taxaw su la plan logistique ak administratif man mi maa koy taxawu lépp loo xam ne nii mooy daara ji nga xam ne nii mooy dalal nit moo ko war a taxawu sëñ Abdoulaye mi moo koy taxawu. Euh, ñi intervenir tey muy jógee ministère ay équipe la ñuy doon yoo xam ne nii mooy fii du dakk saa su ne bari bu fa jóg ay jigéen ñi dana am ay ñaari jigéen ñu fa nekk comme médecin médecin bu ci nekk dana ànd ak au moins ñaari infirmier bu dee wàllu góor yi ni ki noonu bu weesoo loolu dina am ay secourisme yoo xam ne dañu takk seen digg lépp loo xam ne nii mën nañ ko ci wàllu pousse malade ak ñoom ànd ko ñoom ñii di leen wax nii ngeen koy defee nii ngeen koy defee dina am ay ambulance yoo xam ne dañu koy prépositionné tamit bu weesoo loolu tamit mooy district sanitaire dafay Touba assistance médicale

xéewal yu bari yu mu fi defal andi ko fi pour taxaw leen ci wàllu ñam yi loolu tamit ñu ngi koy yeesal ak cant mu jëm ca moom ndax yooyu tamit daa doon yu ci baax ndax kii fi nekk di liggéey am na lu muy war lu mu taxawoo malade yi am na loo xam ne da bu ñëw waxtu xam dañuy ñëw balaa dem feneen keneen di leen remplacer ñëw ñu mën a xéewlu xéewlu gi tamit doyoon na daaw waaye dañuy ñaan yàlla rek ñu gën koo yokkaat ba mu gën a te gën di teel ñëw loolu dina baax ci lekk waxtu sàngam nit waroo lekk yenn waxtu yi ndax soo ko defee day mel da ngay digal dara ba def la ca des jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Daouda tey nuyu mbooloo mi nga àndal ci turu sëriñ Afia Bousso ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñooy taxawu liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ak ci bànqaas bi nga xam ne ñoom nga wuy si tey muy commission sociale bi ci sëñ Abdou Lahad Bousso jiite ko di yëkkati kàddu rek muy kàddu yu gàtt ndax defe naa li ñu waroon wax leen li wax nga ko li ci def sëñ Abdou Lahad wax na ko te kenn la ci ñun li nga xam ne yow it kenn nga ci ñun kàddu yi nag kàddu yu seede lay doon mën naa ne sant gi moom xanaa bu ñuy sant dañ lay sant ci santuk donga waaye ki war a sant mooy sëriñ Mouhamadou Mountakha wala sëriñ Afia mi ko jiite ndax moom moo la joxoon ndigal nga jëfe ndigal kon cant gi moom moo ko moomee waaye baax na tamit nag nit fekke dañ laa booleek moom mu jëf baax na nga seede ko kon suñuy kàddu ci seede yooyu rek lay jëm li ñu ci warit mooy seddal la ko ci sa teewaay bu ñu noppet bay def li ñuy war a def ci ginnaaw maga mooy évaluation bi ñu seedal ko ki nga xam ne moo ñu boole woon ak yow ci xamal ko ne ko li ñu la santoon def nga ko ni nga ko defee woon daawit ñu yëkkati kàddu yi rek muy kàddu yoo xam ni kàddu yu sedd la ak i ñaan du la xamal ne def nga jëf ju defate nga sax laay wax jëf ju baax a baax di jëf joo xam ni ju munta ñàkk la ndax toog nañ fi barki dem ci benn émission rek te lu mel nii lañ doon sàkku mel na ne diglu nga ko waaye wuy sa nga tamit woote boobu ndax màggal moom bernde la sëriñ bi wax jaamu yàlla ak bernde la jaamu yàlla nag nit ki bala ko man faw mu wér lii sabak ak wérit mooy fagaru bu yàlla defee ba nga xam ne tamit agsi na tamit lay tax nga man ko mooy nga am lu la ci mën a jàppale ba loola teggeeku te loola moom nga ñu féete nii moom nga ñu defal nii tey kon nag ñu lay seedeel te di yëkkati kàddu ci turu waa daayira Muxaddamatul Xidma yëpp di la xamal ne daal yoral nañ la njukkal ak i cant ñaan gi nag ñaanuk donga lay doon ndax sëñ Muntaxa war a ñaan waaye ñaanuk dongaat wala ñaanuk jullit bu bégit defe naa am na solo ci moroomu jullitam kon loolu moom ñu ngi lay xamal ne ci sunu xool ñu ngi ciy jël ay ñaan yu kawe kawe ak kàddu yu sell ak yéen ju rafet rafet di ko jëmee ci yow di ko jëmee ci mboola mbokk yi nga àndal yëpp ci jëf ji nga xam ne jëf sëñ Abdou Lahad nag dafa am lu mu waxoon ci liggéeyal borom Touba dafa mos a wax sëñ Moustapha Bassirou ne ko lu ma yërëm kuy liggéeyal sëriñ bi ndax kay fay laa xam kon man sa laa dugal ci cadre boobu tamit xanaa ñi xamut waaye ku xam te mos ku mel ne Cheikhul Khadim ci jëfal ko yaakaar naa ne loo ko jëfal da ko xeeb te tamit doo ci am lenn loo ci regretté ci ne bu ëllëgeet incha allah na nga ko bëggee da ko ni amee kon loolu li ñu man ñun mooy seede rek bu ñu noppi bàyyee la ak moom li nga ci fas li nga ciy yéene nag yaa ko xam ñi ngi ñaan daal lu mën a doon dara rëyut ci moom ci sunu borom. ndax ab daanfan mu daan fa lay fayee moom. ni doomu aadama li def boo ko defee benn mu jox la benn sunu borom ëpp na loolu. ndax li tax. mooy moom léppam dafa baax. ay magasin yu baax rek ci nekk moo tax ñu ne boo defee benn mu defal la ko fukk wala ñaar fukk. amut beneen magasin boo xam dafay def ab safaan moo tax ñu ne ku def benn bu safaan suñu borom dala koy delloo ndax amut fu mu ko denc ginnaaw lu baax la am nag te lu baax nga jëf ñu ngi ñaan na la ko fulal fi nga xam ne moom foofu la foofu la toll moom buy fay faye la ci foofu faye la tamit ci suñu yéene ci yow wax dëgg yàlla ndax féete nga ñu foo xam ni bu lii amutoon yi dañuy sonn rek waaye des na ko jéem baa fu na dana ci fa dugg ngir tuñ lu mel noonu kon nag ba yàlla defee nga féetuñu foofu dégg ndigal li la sëriñ bi sant nga jafe ko te sëriñ bi waxoon ne waqdi xawaaija lasina daamoo fi xidmati wa hablahum ma raamoo bayit woowu moom moo ñaanal boromam te moom wax nañ ne lépp lu mu bind rek fekk na suñu borom nangul ko ko ba noppi fajal ma aajo yi ñi nga xam dañ may liggéeyal kon nag yàlla na la fajal say ajo te fajal ñu suñuy ajo te fajalee mbooleem aajo yi ku dégg suñu kàddu kon gudd gàtt defe naa mën na ñaamale kàddu yi foofu sant la gërëm waaleykum asalaam wa في شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه